lan lañ exposé fi ba fii nag euh, boo xoolee comme dañu ne mois de décembre ki di décembre ne nawel ku ne nawel ne cadeau moo tax tey dañu préféré def defar ay pack nga xam ni euh, Flomar moo ma ci accompagner la marque Flomar j'ai des rideaux j'ai des draps j'ai des parfums de chambre j'ai des packs d'hommes pyjamas et tout alors lépp rek loo xam ni cadeau lay mën a nekk moo tax ñu def ay pack voilà xale yi aussi on n'a pas oublié les enfants mi ngi nii daal am na lépp lu jigéen ak góor di soxla ci biir këram voilà merci. ñëw exposé ko ci foir Thiès Business Events euh, tey sa taxawaay ci ci euh, Thiès Business Events lan. Euh, Thiès Business Events c'est la deuxième édition maanaam ma bokkoon ci première bi mu réussir parce que ñi ko organiser di ay xale yu déterminé yu xam li ñu bëgg yu am jom. suñ ñu woowee si liggéey ñun ay liggéeykat lañu dañ leen si fay si alors euh, bu première bi marché deuxième bi ma ni pourquoi pas ñu defal ma nag surprise ñoo def ma marraine d'honneur euh, kon nag euh, motivation bi de la je suis motivée en tant qu'exposante et très motivée en tant que marraine de de cet événement. mel jeunes yi war nañ leen man di promouvoir comme que am nañu atu di taxawal yu mel ni je dirais même pas les jeunes mais pour les femmes. boo gisee fii vingt cinq exposantes la 80 yëpp c'est des femmes voilà jigéen ñi la ñuy promouvoir euh, une femme doit être indépendante. parce que soo xoolee 85 stands quand même 80 yëpp ay jigéen la ñu ngeen xam ni jigéen jàmbaar jigéen dafa war a liggéey tollootuñu fi jigéen naan góor jox ma góor bu génnee jigéen dafa war a génne léegi dañu bëgg jigéen ñëpp jàppalante ñu liggéey boo gisee stand yi nga xool ni xam ne xale jigéen yi am nañu jom ay jigéen rek ngeen fi macha allah jigéen ñi la ñuy gën a daal promouvoir en plus ñu kii ñaax rek suñu rakk yi ak suñu doom yi pour ne leen nañu gëm seen bopp jigéen war nga gëm sa bopp war nga xam yow yaay kan te loolu lépp rek liggéey moo la ko mën a may voilà seul le travail paye. merci bien merci beaucoup et merci Thiès Leral voilà merci kontaan nañu ci ni ngeen couvrir événement bi depuis démb yéen a ngi fi et depuis le début vous êtes avec nous merci à vous et merci à votre PDG Dame merci beaucoup. borom Beauty by Bettina cosmétique je fais de la cosmétique en général lépp luy produit pour jigéen euh, teint noir teint marron teint clair weex tàll lépp an la on fait de la cosmétique en général nag yemuñu rek ci gamme yi ngeen di gis niin am nañ ay produits yoo xam ne importé Nigéria Ghana Côte d'Ivoire lépp des produits importés yoo xam ne du mélange te da lay may teint bi nga bëgg marron wala weex tàll voilà donc euh, am nañ aussi ay produits pour minceur ventre plat produits forme prise de poids secret dañuy jaay aussi ay épices américains lépp daal loo leen bëgg boo leen ñëwee fii di ko fekk. ku ñëw ci foire bi dina la gis donc foire bi am na opportunité bu mu def ci say ci sa jaay bi ngay def. voilà foire bi am na opportunité parce que dina ma permettre ma rencontrer samay clientes mun waxtaan ak moom mun leen euh, mun leen conseiller. képp ku ñëw fi di ma fi fekk ñëw nag bénéficier ci promo bu rëy bi actuellement savon yi c'est en promo léegi pour ça yi ku jënd savon ñu may la beneen gaam yi aussi boo jëndee am cadeau instant bi produit yëpp moo nekk en promotion soo la ñëwee fii ci foire bi dangeen ngeen di ñëw stand numéro 10 di ngeen ma fi fekk ma conseillé leen jox leen produit yu baax produit yu meilleur yu gën ci seen yaram. dina am benn message booy lancé parce que jeune nga sama taw yi nga xamante ni bi nii xaddi ñi ngi dëkk bi amul dara ba mu leen jaral ñuy dem feneen tey ban message nga leen di lancé. jaratul ngeen di dem di wuti ji feneen di dem ay Europe mun ngeen toog fi tekkee fi seen téléphone yi ngeen yor ak à travers réseau yi moom ngeen di jël daal di liggéey jarul aussi ngeen di xaar pour am yenn fonds yi parce que ñun ñu ngeen di gis on est parti de rien du tout ba tey ji yàlla euh, xaw ñoo jàppale macha allah donc. Euh, boo leen amee seen petit fonds juste mu ngeen commencer seen petit commerce di partager di kii di jaay tuuti tuuti ba yàlla def jàmm incha allah ñëpp tekki ñëpp am ñëpp am dan. incha allah bi moom amu leen fi benn jafe-jafe pour l'instant. non sincèrement amuñu benn jafe-jafe tout se passe bien di leen wax ngeen ñëw bénéficier ci promo bi ah ñu ngi leen di xaar ci produit yu baax maay borom Bienesta by Lady Diana di jaay produit pour femme lépp loo xamante ne bien-être la ci euh, jigéen. moo tax ñu tuddee ko Bienestar parce que Bienestar mooy bien-être en espagnol donc lépp loo xamante ne pour bien-être la pour jigéen rek moom la ñuy jaay jigéen ak góor waaw. waaw foire bi mën naa ne li tax ma bokk si dafa am koo xamante ne man ak moom dañu yàgg link mais mosuñoo xamante mosuñoo xamante réseaux sociaux lañ xamante wee ba yàlla def si foire bi la ñuy door a gisante pour une premier fois dama ko gis rek. mu estati ko ma laaj ko mu jox ma numéro yi ma intégré am sama stand noonu waa c'est bon parce que pour une première doo ñëw pour naan dama fi bëgg a am dara da ngay ñëw connaissance expérience ama loolu la parce que jaay moom léegi da ngay toog sa digg lal sax tëdd sax di jaay donc foire bi jaay taxul ñu ñëw fi connaissance expérience xam moo tax ñu ñëw découvrir ko waaw am na njariñ trop trop trop sax parce que da ngay euh, da ngay ajouter da ngay yokk say euh, say connaissance da ngay amaat ay contact xam nga ku ñëw même bu jëndul sax nga yëg ci sa carte de visite jox ko xam loolu yëpp mooy loolu. tey ndaw nga nekk ndaw ban message ngay lancer sa moroomu ndaw yi wala boog sa moroomu jigéen ñi. bon lépp loo gis rek éducation de base la. parce am na ñoo xamante ne depuis bi nga nekkee xale lañuy def sa xel ne jigéen wala góor da nga war a góor góorlu liggéey mënal sa bopp xama nga bu ko xeeb nag loo am nga xamante ne sa ñàkk la yaa ko njëriñal sa bopp di wax ne ñëpp nañu fexe góorgóorlu ut si lu ñu jàpp liggéey loolu fierté lay doon nga am sa soxla dugal sa génnee faj sa soxla wala sa yaay wala sa rakk keneen am soxla nga génnee ko fajal leen ko loolu euh, kii la quoi comment dirais sag la sag la si nit moo tax képp ku toog croiser les bras rek yaa ngi ci erreur liggéey jamono ji ñu toll liggéey rek time is morning. bon ah, xanaa ji kontaan di remercier ki nga xamante ne moo initié lii muy Yacine borom Oney ah ñu ngi koy remercier bu baax mu nekk nit ku oyof. xam nga ñun bu ñu ñëwee dañuy duñu sentir sax ni c'est la première fois ñuy door a kii daf lay dalal xam nga di ci kontaan trop trop di ñaan yàlla yàlla ku ci nekk liñ ci yaakaar rek yàlla defal la ci Paa ñu yeggale ko si alhamdulilahi rabbil foire bi nga xamante ni waa Thiès Business Events ñoo ko ñoo ko initié tey boo doon ñëw ci quintessence bi solo bi la. Euh, kontaan rek di xam di kontaan bu baax a baax euh, di yëgal waa Thiès ni jaratul ñuy dem ndakaar lépp lu ñu bëgg doomu Thiès yaa ngi fi ay jigéen ñu taxaw pour sukkali Thiès naan Thiès sa kanam. moo tax nag ñu takku euh, ñëw fii loolu moo waral suñu teewaay pour ñu gën a xam ni Thiès am na lépp. waaw foire bi dina ko wane bu baax a baax ndax dinañu indil indil beaucoup de visibilité waaw dina ñu permettre ñu nit ñi gën ñoo xam. jàpp bañ bañ a bàyyi te bañ a xeeb ndax affaire bi tuuti tuuti la tuuti tuuti la ndànk ndànk la fii ku ci nekk bu la waxee fa mu jaar. nga xam ni lépp dëgg la waaw dina metti dina yàgg mais da ngay jàpp rek te gëm sa bopp waaw euh, dañuy def lépp luy jëm ci biir kër dinañ am clim ventilo congélateur yi télé smart TV smart yi Android télé simple 32 pouces ba 75 pouces euh, frigo mini bar frigo de porte bar gis nga ko ni frigo yaa ngi nii dañuy def cuisinière machine à lave euh, couette yi drap mixeur fer à repasser bouilloire euh, lépp luy dem si kër ak ay moquette yeneen bagage yi xaju fi waaw dañuy ñëw fii rek pour indi quelque rek li fi xaj fii ci Thiès dañuy am problème mu robe de mariage dàll bu baax veste bu baax osons les couleur ñëw euh, osons les couleurs daal gis nga ko ak ay produits am yi produit euh, vêtement de classe la marque yu baax lay jaay. alhamdulilah moom vraiment ñi ngi sant bu baax waa Thiès business event ñi ngi leen di sant bu baax a baax ndax euh, foire bu mel nii defe naa ni mi ngi door a am Thiès sécurité bi kontaan nañ si ndax ñun ñëpp alhamdulilah daal waa ci foire bi nga xamante ne Thiès business events moo ko initié tey euh, quintessence bi ak opportunité yi ñu leen mën a li mu leen mën a apporter lan la. waaw dafa ñuy euh, ubbil ay opportunités yu bari parce que foire yi dafay yokk suñu connaissance déjà ñi la xamul woon dañ lay mën a xam loolu mooy tax ñuy préférer di génn pour plus de visibilité daal mooy tax ñuy génn. ah di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal aussi ne kontaan nañ daal franchement organisation bi baax na kontaan nañ si stand bi vraiment kontaan nañ. non non non man moom damaa def réduction sur moins de 20 pour cent sur tous mes articles heure su ma demee foire damay def réduction du ma jaayee même prix que la boutique. tissu lafaaya getzner brodé chaussures euh, bambinerie pour enfants tout ce qui est accessoire pour femmes et enfants. xanaa ànd ak sama grande sœur Salimata Traoré madame Guèye borom Lima boutique mu indi ay xeetu baax baax indi ay xeetu tissu yoo xam ne qualité la 100 pour cent amul fenn. daa di wàcce prix bi nag ba mu baax comme foire la ñu woote te xam na ne jamono neexul euh, voile yi nga xamante ni mi ngi koy jaaye deux tons yi ñëpp xam nañu voile coton pur la mu def ko à mettre cinq cent francs lafa yaay yaa ngi nii macha allah ba Dubaay la jugee lafa yaay yaa ngi nii macha allah mu def ko prix bas. kay solu la woote ak ah, boo amee xew bu la jàmp jàmp jàmp da ngay contacter Lima boutique xoolal mesure yëpp a ngi fi taille yëpp a ngi fi te yamuñu ci. xale yi yemuñu ci góor yi dafa def unisex saag yaa ngi dàll yaa ngi pochette yaa ngi lépp a ngi fi. solo foir bi bi nga xamante ni waa Thiès business events euh, euh, amal nañ ko fii ci Thiès. dina la permettre nga am visibilité dina la permettre euh, yenn opportunité yi di nga ko am macha allah foir bi kontaan nañ ci bii mooy sunu première édition ñuy ñaan yàlla yàlla nañuy ci dem a dem a dem ba dem ci ay dix ay quinze.